dama fële ay témoignage yu am solo lii ma boot. waaw fii la juddoo si kër gi. lii ma boot nii si kër gi la juddoo. na daanu suuf sama jinne na daanu suuf sama jinne na daanu si suuf na daanu si suuf na xalangu suuf sama jinne na daanu suuf sama jinne ban jinne nga yow jinne nga wala dëmm nga jinne wala dëmm jinne nga jinne nga góor nga wala jigéen góor nga loo fi def danga danga kaa nopp looy def si moom xanaa da ngaa dof rep hey da ngaa dof rep da ngaa dof rep yaa feeñ jugu yaa feeñ jugu maa. daa sowoon. lu xew yow. merci. xale maa gën a. yow sama jinne yow la soxla yow. sama jinne yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow sama jinne yi. yow. yow. yow bu baax. yow. sama jinne yi. yow. yow. yow. yow. sama jinne yi. père yaa ngi gis ah yow sama jinne yow yow yow ban xeet gëmu ma ban xeet gëmu ma dama bon yow dama bi góor wala jigéen. dama dama dama la. dama la laay waxal la bu jigéen man xeetu dama. di bu jigéen bu am doole. loo fiy def. loo ah. looy def sama kër looy def fii. jàpp naa la wala jàpp ma la. Mm-hmm. jàpp naa la wala jàpp ma la. jàpp nga ka. may loo fiy def. jàpp na ka bu baax. kañ koy bàyyi. na bàyyi. hey. Jinew Fa Jinew Bemba. di nga bàyyi wala doo bàyyi. dina bàyyi de. Eh, de. ñaata minute. bu yàgg. Jinew Fa Jinew Bemba. Karamba Karamba de Jinew Fa Jinew Bemba. parce que ni bi man dina laay bàyyi wala dëmm laay bàyyi. dina ak dëmm yëpp. dina ak dëmm. waaw. ren fii def. kii dama koy lekk. da nga kaa bëgg a lekk. waaw. lan moo tax nga bëgg a lekk. hey. lu la nga bëgg a lekk. dama neex. dala neex. waaw. lu la nga bëgg a lekk. kañ nga koy bàyyi. bàyyi ma bàyyi ma. kañ nga koy bàyyi. bàyyi ma. ma bàyyi la. su ma la bàyyee nga def naan. dootuma la gisati. dootuma la gisati. ki nga dugg kañ lay wér. ki nga dugg kañ lay wér. bàyyi la. léegi laa koy faj de. léegi léegi lay wér par force. merci. léegi léegi lay wér. par la. te garab yi génnul ndox kese. si bikit di la jóge. te ba tey génnewuma garab. génnewuma suuru te mën naa faj ñëpp te garab du génn suuru du génn sama barke maam karam baax barke borom bi bi baax mën naa leen faj ñoom ñëpp garab du génn suuru du génn alfaay jëy yaa baatulu kumba ngulay hey kañ lay wér nan ko kañ lay wér bàyyi ma ñaata minute léegi ñaata minute léegi nga bàyyi ko ban feebar nga def si moom bopp bi dafa sonal. ak lan. ak lan. ak lan. maa ko jàpp. yow yaa ko jàpp. yaa ko jàpp. la moo tax nga ko. da a lekk. da nga koo lekk. yow jinne yaa ko lekk wala yow dëmm. man dëmm. yow dëmm nga. yow dëmm bi góor nga wala jigéen. góor. nga. ñaata nga si moom yàgg na. waaw. te yoo kayo koy bàyyi kayo koy bàyyi si ñaata sëriñ la jaar bari na ku la mës a jàpp kenn bës leen ko mu daanu sama jin hey bës leen ko mu jaaxaan bës mu jaaxaan taa soxaani ko daal na sama dimbali day daal suuf rek na daal ci suuf rek jonkan bi rek jonkan bi wurara karamba jaayi faara wurara karamba dina tigi karamba na ko tigi karamba e ko jaayi faara ba tu dinde en so na topp ko na raam mu ñëw ñu topp ma. Koubé Diarra Koubé Diarra ju digi karamba sama tànk bi laa ko soxlaa sama jinne yi diri leen ko ba samay tànk puusa bu leen nëbb sama image waay lan mooy nëbb bu ma kenn de def ma dul wala fen bu kenn nëbb sama image samay tànk na sugg tànk bi hey na sujjoot tànk bi sujjoot ba ñëppay wér tey far yaa fañjugu yaa fañjuma yaa fañjugu yaa fañjuma karamba ba seen jëbi sama tànk ba jëbi ba seen jëbi sama tànk bi ba jëbi ba seen bopp bi sama tànk bi ba seen ko tànk sama tànk bi jëbi na laal sama tànk bi ba seen ko ba seen ko bës sigil leen ko mu daanu sigil leen ko mu daanu sigil leen ko mu daanu xalangu ma nekk si leneen ne sigil mu daanu xalangu ma nekk si leneen téye leen ko foofu baax na. te dem gémmañ gi gémmañ gi organiser waral affaire yi waay. dañu waat affaire yi ay fen génnul de xam-xam mooy génn fii fii ñu nekk nii. xam-xam mooy génn ni xam-xam di génn lan la ay dox amuñu fi ñi fi ñëw xaw ma leen xaw ma fuñ jóge mais tey laay faj dina bu fi nekk dama lay jàpp dëmm fat foos mënoo si dara yàlla kese moo si man dara gannaaw yàlla si borom Seydina Muhammad ak Serigne Fallou ay wala yaa feeñu yaa feeñu ma yaa fanju ma yaa fanju ma Karamba ya fenjugu ya fenjuma ya fanyu ya fanyuma karamba make sansa karamba beke karamba bismillah tu bismillah sante kumre ani wamte kumre karamba ne basiri ni jori ni karamba make sai sai karamba beke karamba ya fenjugu ya fenjuma karamba so barkemma setu kuma gule sarawule sarawule ce sarawule muso sarawule sarawule sarawule sarawule muso sarawule yaa fɛn jugu yaa fɛn ɲuman dinɛ sarawule yaa fɛn jugu yaa fɛn ɲuman dinɛ sarawule yaa fɛn jugu yaa fɛn ɲuman dinɛ sarawule dinɛ ɲɛ dɔ de bɛ ne dinɛ mun wa fisi ni bi o falo bɛ yɛlɛ. Ah, don't look at me. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. sama jinne yi. yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. No! taxawaay taxawaay bi fii bu bare tamit ku firndewul caméra woo rek taxaw ku firndewul caméra woo taxaw Thank you. nee na ma war a faj ay waaw loolu laay liggéey waaye tudd ma war a faj ne jëm nii.